mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi nuy ñëpp di leen ziar uh, di jégalu tamit ci live bi nga xam ne ñu ngi ko bëgg a def defuñ ko tamit ngir dara defuñ ko tamit ngir wut ci dara defuñ ko tamit ngir yàq ki ñuy wax ak parce que jullit la comme ñëpp mbokk la mag la xarit la lép la uh, nit ñi liir nañ benn vidéo bu nekk ci internet bi kooku tey doon wax wax jooju ñu am na sax xëy na ñu koy woo di koy saaga waaye. loolu moo waral ñu def leeral bii amoon benn mbër bu doon bëreek ak Eumeu Sène muy Modou ci contre moom ak Eumeu Sène la woon ñëwoon fii voyage fii ci dëkk bi laaloon kii toog nii suñu mag suñu kilifa la mu ngi tudd Cissé Thiam kii la Abdoulaye Thiam doon wax moo waral ñu def ci leeral jël vidéo yi pour mu wax ak yéen ngeen déglu ko xam ne lii du pour yàq ko lañ si jublu du yàq avenir am du yàq carrière du yàq daraam waaye ku lor doomu aadama te tane ko man pour man. war nga man a dimbale ko faj ko waxuñ sax moom mi ngi toppatoo njabootam too léppam kii mënul loolu demul dikkut fii mu tëdd nii jugu fi wàccut fi te loolu yàgg na ba baax ay ati atat kon dinañ leen bàyyi mu présenté wu mu nuyoo bisimilah. waaw ah, asalaamaaleykum maa ngi nuyu yéen ñëpp kenn ku ci nekk turam ak santa man la Aliou Cissé Thiam maa ngi sant di leen gërëm yéen ñëpp ñëpp gërëm Modou Lo hmm. di ko sant di ko gërëm di gërëm Ablaye caam boobu kooku suñu grand frère la ñoo bokk liggéey bi tout te man ay ti ngi ni maa ngi tëdd maa ngi jóg di doxantu ni tuuti tëddaat même dépasse sax fi mu nii ma koy ma ko ma ne ñu sant di li ñu gërëm wax dëgg yàlla Modou na ma en charge sax mais dama koy sant di ko gërëm moom na man waroon na maa dimbale gën a maa dimbale jàppale mais dem na ma si yoon yoon fi mu nii yóbboon na ma hôpital yàgg naa fa ba am toog ba génn ma yoroon numéro téléphone am di ko woo di ma jóg ba si kanam après jotutuma ko ñëw naa ba Dakar ànd ak sama xarit rakk ji dem nañu foofu Dakar am naa fa ay 15 jours premier jour am na fa 15 jours ba ma yeggee ma ba tey jii ma gis moom ma ñib si ma ñib see après naa ay demaat ci moom ba ma fa demaatee mi ngi tombé boobu mi ngi jege Tabaski ba fa dem ba tey gis naa ko sax mais tooguñu wax après nag la ma yaayam fekk maa ngi kër yaayam laa ñibbi après yaay ne ma ndax da ngay ñibbi ma ne ko da ngay ñibbi ñu gis ko après la yëkkati 500 10 500 ñaari junne ak juróomi téeméer moom la yëkkati jox ma ko ne ma mun nga paas lii xam naa ne moom dafay tukki ñëw lii ma ne ko waa baax na kon après laa ñibbi même fi mu toll dépasse ak man dama doon laa yoroon demoon dépendance ci sama soog bi dama si demoon dépendance ci àll bi fii ma yore sama welo Jakarta dem di ba ay timis ma ne xaaral dinaa timis jot na xaaral ma julli ba pare timis ga pare jëm ñibbi léegi fa la ñëwee ma te ma taal sama welo di ñibbi ba ñëw ñu ne kotaal la ma laale sama loxo bi damm sama tànk bi damm sama tànk bi damm droite bi ak loxo gauche bi ak sama bopp bi am na ay waaw léegi ñun li ñu bëgg a xam mooy na depuis boobu ba léegi at yi nga tëdd nii yëpp est que boobu ba léegi doon nga ko dégg wala comme ni nga doon fajoo ba léegi ak feer yi noonu ci sànq bi ba léegi dégg nañ ne dañut loolu yëpp feer bi man dindi naa ko man maa dem bi ci mm-hmm. Mm-hmm. mais amoon naa pàkk sax bu ñu jigee pàkk bi koo jaay am mm-hmm. ay po dama ko mujj jaay sa parce que commencé woon naa ko tabax dama ko mujj jaay di mhm. di di di joxe sama mhm. mhm. léegi nag mbir mi lii la defuñ ko ngir yàq Modou loo defuñ ko ngir dara dañ ko def ngir lenn kese kii moom moo ko tane ci dundam mu dimbale ko te yàlla rek a tax bu doon tey beneen mbër la nay Balla Gaye nay Tyson nay ku mu di doon nga gis koo xam ne malade la di jaam yàlla rek. war nga caa mën a jaamu yàlla rawatina koo xam ne ay tànkam doxut daram doxut mu fi mu toog la toog mënul demul dikkut te bu sañoon sax lii nii du génn wala lii du ko wax ndaxte alalam la doon jaay doon fajoo mënatul tey kon message bii nii Pape Abdoulaye Thiam mi nga xam ne def na audio bi ak vidéo bi ci internet bi ngeen di koy saaga wallahi ñi ngi dëggal loo xam ne lii dëgg la am na loo xam ne sax ko wax ndax mbir nit gor-gor rek la mën a doon waaye ñu ngi koy lancer appel di ko wax ne ko julit day dimbale mbokkum julitam su fekkoon dana sax li ko dal sax yow tegoo ko ko ñu ngi jéggalu askan wi di jéggalu mbooloo bi yëpp xam ne defuñ ko ngir dara wutuñ ci tamit dara waaye bëgg nañ mu jël ko en charge ataa bu koy génnee mu tukki mu yóbbu ko mu neem faju sax su mënul lool nañu ñu ko dimbalee pour faj ko jaamu ci yàlla yàlla rek a tax àddina bi dafay jeex ñi fi nekkoon yëpp dem nañ ñu ngi koy wax ne ko lu toll ni sax ku dëkk Medina Baye Niass nga laal ko rek tey jii fi mu toll nii nii nii nii ah, bu ko tey xol yëpp yëgoon rek mën na sofewu pour ñu bala àddina ilaa yawmi din te loolu warut lii lañ ci jubloon pour wut ci ay leeral ñu ngi koy jégalu bu baax ne ko defuñ ko ngir yàq ko defuñ ko ngir dara ay leeral lañ ci jubloon Dakar gii man ak moom ñoo ci àndoon dem ci tukki boobu noonu keroog ba fii may waxee yow teguñ ko bët hôpital bi mu tëdd keroog ba mu fa jugee ko lañ gëj a xam ci moom dara amoon na sax ku ñu doon wax aas ku fi daan ñëw wala daan ko dégg ñoo ñëw xamatuñ ci moom dara lii daal message la buñ ko lancé pour mu jàppale ko te yàlla tax defuñ ko.